التراب جائرا بذا الندام لك وقبله وقمت بذا تبت لربي زائرا بذا الندام لك وقبله عبوت بذا وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله yaa xayri xalqillaahi imaam albaraayaa ku sopp sayyiduna Muhammad wa innaka la alaa xuluqin aziimin wa innaka la alaa xuluqin aziimin wajhu nabiyyil muntaqal muniir yuniir qalba kulli mustaniir ahmaduna al muxtaar laa yubaaha عند الذي بالبرايا باها نبينا الأحمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا الأحمد نور الأنبياء عليهم أزكى السلام من ربيا كتاب أحمد سوى نسى وإنه بخير لن ينسى للمنتقى للمنتقى lil muntaqa lil muntaqa ana ñu bëgg sayyiduna muhammad lil muntaqa alladi taqaddamu sabaq zikrul hakim minu iblisu labaq alayhi salla bi salaamin sarmada fil ali wal asaabi wa kulli hamida lil mustawa للمصطفى للمصطفى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاحد ألا يسكن أكد في كوني أحمدنا المختار نور الكون أحمدنا أحمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فأمد صدر العلوم نافع الظلمات أسجمت لم ينني شك ولا توقم ولسوى قلبي ينقل وقم قلبي يسنه الجميل عن قبيح وليقود نور فيما ليبيم علمني من لوقي والقلم من يقود علم ما لم أعلم jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, sant Cheikh du Bamba euh, ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, ñu ngi nuyu bu baax xalifa borom daru muy sëriñ Bassirou Anta Niang mais nga xam ni fala nu bàyyi ko waaye bi ñu fa jógee itam danoo jëm si rek ci njabootu sëriñ Abbas ndax sëriñ Basiiru moo wutu sëñ Abbas sëñ Abbas bi mu fi ne nag dafay liggéey liggéey boo xam ni liggéey bu rafet la liggéeyal ko bàyyi maam Thierno suñ maam Thierno keroog bi Seex Alsaan ñëwee ci sa kanam waajur wa bañ ko fekkee mu toog ca der ba ku jàkkaarloog moom da ngay xam ni nit yàlla nga jàkkaarloo. na sëñ Abbas da nga naan ko jàkk xam ni mbiram yëpp jeexal na ko ci boromam jeexal na ko ci rasulillahi waaye jeexal na ko ci maamam Serigne Touba ak Thierno kóllëre googu doxoon diggante Seexal Saan ak Serigne Abbas Serigne Abbas doonoon baayam bi mu fi bàyyi ko mu fekk ko bitim réew waaye bi mu ñibbisee nag màggal gi xat lool mu ne ah mbiru daaru daal nanu bàyyi ba màggal gi jàll ba mu dal mu jóg. dem jëm nag daaru. waaye bi mu jógee nag mu tànn weer wi nga xam ni muy weeru rasulillah daaru am ci cër bu rëy na wax ngeen ko léegi 1912 ba léegi guddik altine gu ne ñu tàntal rasulillah loolu yombul maam Thierno ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax ci turu sunu sang bu baax bi ñu àndal ki nga xam ni léegi Médine rek wax na ma ni ma ni seex bi doxee ah ak fi mu taxaw ak nii mu def lenn rek ku ko man muy mbaax ak kóllëre am na kaddu gu mu wax gu am solo ne ne ne ne foo dugg ci këru diine yi rek am nga fa seize seize am nga fa place te dëkk diine yëpp bu noddee bu la neexee nga sañi li am nag ndax dara dara warul ko lu dul sopp gi nga sopp rasulillah nga am cër nag sa maam liggéeyal nitu yàlla ba am ci cër ba mu caam waaye réew mi nag ñor la ñor goo xam ni dañuy ñaan suñu borom bàyyi la fi te yàgg la sëñ maam am nga gan gu baax am nga gan gu tedd am nga gan goo xam ne bi muy ñëw ànd nag mbooloo mu bare bare kii toog mooy jëwriñ ale bokk ci njabootam sëñ Hassan sëñ malik mais ñoo bokk ñaari wayjur yëpp mu dendak ak malik Malick ah dend ak Cheikh Mouhamadul Mansour si mu baax mi toog imam Sall bu Parcelles Assainies ak Seydina Ali waaye waaye ñi ma àndal ñëpp ay kilifa la fenn fu ci ne ci ñoom fa nga nekk amee nga fa boo xam ne yaa ngi koy doxal waaye nag mu ñëw ngir jaale la nag. ki nga xam ne nag sa waajur la te mënoon na ko jàlli boppam ndax sëñ Abbas bàyyam la sëñ Bassirou Anta Niang li ko wax léegi ni ni ni fi la sëñ Abbas féete woon des na la fu féete du wàññeeku waaye day yokk de ba nopp nag mu ànd ak moom dem ba ci bibliothèque bi wan ko wan ko wan ko téere alxuraan yi yemu ci mu jàpp loxoom nag dugg moom ba ci biir néeg bi nag waxtaan ak moom ki la dugal nag ci biir néegam am na foo xam ne bu la fa teglu woon mën naa yem ak ci saal bi bu paree nopp ñaanal la waaye dafa ànd ak moom dugg ci moom ci biir waxtaan ak moom. ci li Cheikh Bassirou bëgg ci réew mi ak projet yi nga xam ni mu ngi ci kanam. Mm-hmm. kon nag loolu yàlla na ngeen ko yàggaan. ñu ànd ak nag signal yi mii nga xam ni moom it dëkk di doomi dëkk bi dëkk ci dëkk bi nga xam ni taalibi dëkk bi la mm. te dëkk bi rek ko ñor moom it jiite euh, euh, jiite jiite jiite yoon wi mm. euh, yor protocole bi nga xam ni daaru moom daaru moom bu ne signal yi rek dañuy xam ni daaru moxti rek la bëgg waaye nag waaye nag wéetu ci mu ànd cee nag surtout borom daaru di Cheikh Modou Bachir Mbacké mi nga xam ni biñu demee yëkkati nag kaddu yu rafet jëmee ko nag ci Cheikh Modou Bachir kon nag yaakaar naa ni njabootug daaru ñoo gàttandu sëriñ bi waaye taalibe yi daaru ñoo gàttandu sëriñ bi waaye bi ñu tamit fekk fi nag les communicateurs nga xam ni maam Thierno Ibra Fati ni mel ak ak ak ak géwél ni mu fonki géwél nga xam ni tabaarakallahu ñoom ñëpp ñu ñëw nag yàgg bëgg seex bi yàgg sopp seex bi nga xam ne fo fo fu ma leen gisee ñu ñu laaj ma seexal sa moo tax ñëw gi gi mu ñëw daaru nag kenn ku ci nekk nag bi ngi yëgee ni mi ngi ñëw ah ñoom sax ñu mujj soññ ma. ñu ma ñu ma ah <laughs> euh, asalaamaaleykum wa mu ngi leen di nuyu. nee na ngi jiital ci nuyoo bi Cheikh Alassane. ak mboolem mbokkam yu baax yi mu àndal. nee dëkk bi ñii nga xam ni doomi dëkk bi la nu mu ànd ak moom. ne mi ngi leen di nuyu bu baax a baax. ne di leen dalal jàmm. nee na di wax ci turu sëñ Maam Cerno. nee na sëriñ Basiiru dem ca tool ya. ne dafa wax ni gan googu gan gu rëy la ci ñun. danoo bokk toolub lislaam bi. ba pare mu am lu muy liggéey ci réew mi. mu am nag lu muy liggéey ci réew mi. bàyyi xel sëñ Abbas lool. ne bàyyi xel sëñ Abbas lool. ba tax na bu ma ba tax na bu ma sañoon bu ñëwee. ba tax na bu ma soñoon bu ñëwee. yéen dana dana kontaan. dana kontaan. dana yëg ni yéen ñi mu fekk si itam bàyyi ngeen ko xel. dana yëg ni yéen ñi mu fekk si itam bàyyi ngeen ko xel. naa sëñ Mame Diarra Fada dafa wax ni ëpp ci kàddu ba noppee sëñ Cheikh Samb moo koy jottali. ne ne ne ne dafa wax ni moom sëñ Mame Thierno li ëpp ci kaddu yi bu noppee sëñ Cheikh sëñ Cheikh Balla dana ko jottali. waaye daal li ñuy feeñal ne li ñuy feeñal ñun. muy cant guñ ko cant. nee na cant gunu ko cant. ak tànk itam ak tànk yi nag rëy gu mu ci ñun. xam nañ ñoo ko bokk. xam nañ ni ñoo ko bokk. xam ne itam maanaam sëñ Abbas am sëñ Abbas sam la woon. ne xam na ni sëñ Abbas sam sëñ Abbas la woon. ndax ñëwoon na fi. ñëwoon nga fi. Eh, ba yaatal ak sëñ bi lool. nee na nga yaatal ak sëriñ bi lool. sëñ bi itam bàyyi woon la xel lool. nee na sëñ Abbas bàyyi woon la xel lool. kon tey bu fi jógee. nee na su fi jógee. boo ko jaale sa bopp yi nee na soo ko jaale woon sa bopp yi itam. dañuy xam ne ñoo ak yow ñoo ci yem. ne dañuy xam ne ñun ak yow ñoo ci yem. déplacé ci ne soo déplacé nag ci jamono ju xat ji. ak yitte yu bari yi. ak yitte yu bari yi. nga nga jóg ñëw ci ñun. nga jóg ñëw ci ñun. dañuy yëg na rek. dañuy yëg ni nag. Euh, maanaam da ñoo bëgg a boole ci sa bopp. da nga ñoo bëgg a boole nag ci sa bopp. ak itam xam ne réew mi menn réew la. xam ni réew mi mennum réew la. tool bi itam benn tool la. ne tool bi itam benn tool la. waaye euh, buñ la gisul woon itam. suñ xam ne li fi dañuy xam ne nag li fi ñoom moo nekk fi yow. ne tànk yi rëy na ci ñun lool. kontaan nañ lool itam. ndax xam nañ fi jamono toll. xam nañ fi jamono toll. xam nañ xat-xat yi ni mu xam nañu xat-xat yi ni mu bare. kon boo bàyyi lépp. soo bàyyi lépp. ñëw ñëw. jaar fee ci suñu kilifa. jaar fee suñu kilifa. nga xam boo fa yemoon rek mu doy. nga xam ni boo fa yemoon rek mu doy. nga agsi ci ñun. ñun. loolu rëy loolu rëy na fi ñun lool. ñu ngi lay sant bu baax a baax. di la gërëm di la gërëm. di la wax na itam di la wax na itam. ñun amuñu lu dul ku ñu lu dul ku ñu yëg. na nga xam ne lépp loo nekk. na xam ne lépp loo nekk. ñun ñu ngi ci biir. ñun ñu ngi ci biir. waaw ko yëgee daal. suñu ko yëgee daal. danañ ci ànd ak yow danañ ci ak yow. Ah, ndax lii rey na ci ñun. lii rëy ci ñun lool. ku ne ñëw na fi ku ne ñëw na fi. waaye yow nag da ngaa boole ñaari ndombay tànk. yow nag da ngaa boole ñaari ndombay tànk. mooy wàllu diine ji. cër bi la yàlla cërale ci àddina. ak cër bi la yàlla cërale ci àddina. ba tax na ba tax na. fépp daal pare nañ pour gunge la fa. nee na fépp pare pour gunge la fa. xam naa pour bañ a guddal. pour bañ a guddal. ñu ngi ñu ngi sant bu baax. ñu ngi sant bu baax. ne Cheikh Bachir daf ni kon faaw mu jël ci kaddu. pour sant pour sant. waaye Cheikh Awa Balla. waaye Cheikh Awa Balla. boo noppee dana tontul sëñ Maam Thierno. nee nee na soo noppee dana tontul sëñ Maam Thierno. jërëjëf jërëjëf Mbacke. Cheikh nee na gannaaw bi ñu sante yàlla. di ko nee na des di ko sant nee na ji julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu ngi nuyu sëriñ bi sëriñ bi seex baa ngi lay ziyaara nee na mi ngi lay ndokkeel nee ci weer wu tedd wii di weeru seen maam. nee na di weeru seen maam. yonent bu tedd bi. nee yonent bu tedd bi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ndax diggante borom daaru. nee na diggante borom daaru. ak Cheikhul Khadim. ak Cheikhul Khadim. ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dara doxu ci. nee na dara doxu ci. daanaka sax. daanaka sax. koo ci gis rek. nee na ko ci gis nee na gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëmm ci jëmm ci taxawaay ci taxawaay loolu moo tax loolu moo tax ma wax ni ñu ngi lay ndokkeel ma wax ni ñu ngi lay ndokkeel ci weeru samaam di sant di sant it njaboot gi yëpp njaboot gi yëpp dégg gi sëriñ bi sëriñ Abdul Xuddus sëriñ bi ne dégg na kàddu gi eh, sant naa ci ne sant na ci waaye bettu ma it waaye itam bettu ko ndax bi ma ñëwee fii seet si góor gi. nee na bi mu ñëwee fii seet si Serigne Abbas. dama amanteeg moom jotaay bu yaatu. dafa amanteeg Serigne bi jotaay bu yaatu. kenn raxuleen. kenn raxuleen. mi ngi toog ci deram. mi ngi toog ci deram. takkusaan wéy na. ne takkusaan wéy na. ma waxante ak moom. nee na mu waxanteeg moom. daanaka jël na engagement ci man. nee na daanaka jël na engagement ci moom. ci wàllu dugal ma. nee na ci wàllu dugal. ci njabootam. loolu moo rogalaat tey jii. waay waay ne loolu moo rogalaat tey jii. ci sa kaddu yi ne ci sa kaddu yii. moom moom nag. maa ngi leen koy jaale. maa ngi leen koy jaale. di ko jaale sama bopp. ne di ko jaale sama bopp. bi ma jógee ci moom. ne bi mu jógee ci moom. ba léegi. ba léegi. amul bis. amul bis. bu suma xel du dem ci moom. nee na bis boo xam ne xelam nag du dem ci Sëñ Abbas. ndax euh, li ma yëg. nee na li mu yëg. jamono bi ñu toogee. ne jamono bi ñu toogee. te dañuy wax ci alquraanul karim. ne dañuy wax ci alquraanul karim. siimaahum fi wujuuhihim min asari sujuud. siimaahum fi wujuuhihim. min asari sujuud min asari sujuud. loolu. loolu. ay ceeñeer. ay ceeñeer. yu ñuy xàmmee. yu ñuy xàmmee. ci nit. ci ku jeex ci boromam ci boromam. waay waay Cheikh Alassane ne keroog bi mu toogee Serigne Abbas loolu la yëg wax ju gàtt wax ju gàtt lay wax ak moom waaye wax ju fulaal lool la ko wax mu mel ni xeej rek mu mel ni xeej rek bu ñu roof ci xol ne mu sedd ci xolam nag jamono jooju loolu moo waral bi ma demee ndokkeel xalif bi na bi mu demee nag ndokkeel xalif bi jaale ko jaale ko dama ñëw ci kër ne dafa ñëw ci kër gi pour wax ne pour wax ni seen mbokk seen mbokk seen frère seen frère ñëw na ñëw ñëw na nag seet si leen ngeen xamee ko noonu waaye waaye sëñ maam Thierno Cheikh Abdoul Khoudous yéen ak njaboot gi nag ngeen xamee ko noonu ngeen xam ne aussi lii waratul gëj ci ne ngeen xam ne lii waratul gëj nag ci suñu diggante duggee daaru. nee na soo duggee daaru. li ngay yëg soo duggee Medine rek ngay yëg. na li ngay yëg mooy saa soo duggee Madinatul Munawwara rek ngay yëg. Ah, xaw ma woon nag li ko waral. xaw ma woon nag li ko waral. ba sànq. ba sànq. Mouhamadul Bachir. nee Cheikh Mouhamadul Bachir. wax wax. altine gu altine altine jot. guddi gi ci guddi gi. defe naa dimanche ci guddi muy dimanche ci guddi di guddi altine. dañuy fiy tagg yonent bi. waay waay dañuy fiy tagg nag ki nga xam ni moo gën ci mbindeef yi muy rasulullah ba fajar te ay ay ay ay at a ngi nii. amal lool nee na amal lool. loolu nag loolu nag. moo indi lii. moo indi lii. dama wax sëriñ bi benn nit. dafa wax sëriñ bi benn nit. ma ne ko gis nga koomu réew mi. mu ne ko gis nga koomu réew mi. Euh, dana dem ba nga xamante ne centre koomu réew mi. ne dana dem ba centre koomu réew mi. Touba lay doon. Touba ci boppam lay doon. li ko waral nag. li ko waral nag. dañuy wax ne sax or feeñ na diamant feeñ na pétrole feeñ na gaz feeñ na. ne dañuy or feeñ na diamant feeñ na pétrole feeñ na gaz feeñ na. Eh, xëy na sax dañ koy teg rek ci wàllu géologie ni muy doxee ci àdduna. ne xëy na dañu koy nag teg ci wàllu géologie ci ni muy doxee ci àddina ne soo xoolee bu baax bi ni sëñ tubaa daree woon yonent bi te ko bàyyi. ne soo xoolee ni sëriñ Touba daree woon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te ko bàyyi. waaw ba dem ba wax loo xamante ne. dem nag ba wax loo xamante ni. yàgg nañu yër ay téere. yàgg nañu yër ay téere. mais wax lu mel noonu. waaye wax nag lu mel noonu. daa kawe ne dafa kawe lool. muy isa katabtu tasa arshullahi wasabaxa malayku tibaahi mm-hmm. waaw ni bindam yooyu di yëngalee arash ne ne ne seexil xaddiim nga xam ni ne mbindam moom nga xam ne bind na ko te su ko bindee mu yëngal aras euh, pour pour pour xam la nekk ca biir waay waay nee na pour xam la nekk ca biir il faut nga nga mos ko waay waay nee na il faut nag nga mos loola am benn waay bu ma wax bi ne dafa am benn waay bu ko wax baat bi. am na diingatkat yi dañu bëri ci réew mi. ne diingatkat yi dañoo bëri ci réew mi. mu def nii kanam gi. ne mu def nii kanam gi. ma ne ko sëriñ bi. ma ko sëriñ bi. ku reeree ginaar. ku reeree nag ginaar. mënta géex. mënta géex. géexu géexu. ki reeree mbaxal. ki reeree nag mbaxal. te xet ya. xet ya. du benn du ne ko soo dëppee wax ji it. ni ko soo dëppee wax ji it. ku xamul li xew. ku xamul li xew. ci ginnaaw sidraat al muntaha nee na ci ginnaaw sidraat al muntaha munoo xam munoo xam la xew foofu nee na la xew foofu ndax yëg-yëg yi yëg-yëg ne benn mënta nekk nag benn Cheikhul Khadim nee na Cheikhul Khadim daa dem dafa dem ba seey ba ci yonent bi nee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag loolu nag mu yóbbaale ci borom daaru ne mu yóbbaale ci nag borom daaru ndekete ndekete borom daaru it borom daaru it nekkoon na ca loola nekkoon na ca loola sax laataa sax magam bu tedd ba magam ju tedd ja di ko yóbbaale di ko yóbbaale ca loola loolu nag loolu nag moo daw rek moo daw daal di wesaarewu wesaarewu ci sëriñ Abbas ne ci sëriñ Abbas xam naa li ma wax ne moom xam na li mu wax dañoo dañoo am jotaay ne ñoom ñaar dañoo am jotaay ne boo xam ne kenn raxule loolu moo indi ma ñëw ci yéen. nee na loolu moo indi sëñ maam Thierno mu ñëw ci yéen. dox tànk yi ma dox dox tànk yi mu dox. di leen sant bu baax di leen sant bu baax. ci dal ci dal gi. di ñaan yàlla di ñaan yàlla aussi. njaboot gii mu fi bay nee na njaboot gii mu fi bay yal na ko yàlla wuutu moom na ko yàlla wuutu moom ci yéen ci barke yonent bi nee na ci barke borom dëkk bi nee na ci barke Seexul Xadim sant naa leen bu wér di sant ñi ma dalal ñëpp nee di sant ñu ko dalal ñëpp ndax seen taxawaay seen taxawaay rafet na nee rafet na dalal bi rafet na nee dalal bi rafet na mu ngi leen di sant yéen ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu jërëjëf sëriñ bi biñ santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam sant sëriñ Tuubaa Seex Xaadim di sant borom daarul moxti ñoo ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ah li daa mel ni loolu yaay lay dëgg la nee na jege bu doon tax a bari gan chef de gare kenn du ko ëppale ndax ku wàcc ci gare moom ngay jaar waaye li nga def tey daa nuru boo jaar ci bokk bu see yoon jubee sam xel jubut ndax bu sam xel nga jàdd nuyoo te boo jàdd nuyoo sa yoon yu dëng te nga xam fa nga teg sa waaye kii tey nga xam ne ki ñu xool sëñ Abbas dafa ne ca tool ya moom ñu ñu bokk lépp ba ci sëñ Cheikh Abdou Khoudoss mais toog Cheikh Cheikh Mouhamadou mais toog nee nañ sant nañ loolu loolu leen wax gëm nañ ko ndax li tax wax bu yenoo mën naa di ko seere bu la neexoon nga bañ a ñëw te xam nañ nga bañ a téléphoné te xam nañ sa diggante sëñ Abbas ga nga jàpp sëriñ bi ñun xam nañ ko ndax sëriñ bi lu France moom France ñun nag duñ sëriñ ci yow dañoo bokk yow bàyyi ndax la bi def doom wala sëriñ bi de yéen a ngi doorandoo yéen ay bàyyindoo boo ne ñuul la ñu ne kooku boo ne weex la ñu ne tàng ndax ñoom am nañ ku tudd sëñ Abbas te xam ne fan ko teg nag ñaan ñi ngi ñaan ci kàttan yàlla yonent bi sëñ Touba Ceerno mi nu yaakaar li nga bëgg yàqam yàlla na ko yàlla def ci barke bi sëñ Touba ñoom daal sant nan gërëm nan te nee kat loo wax wax nañ ko loo waxuñu ko ndax amuñu ku dul suñu abaat te xam nga fa xam nañ fan ko teewoon kon nag sëñ bi ñun sant nañ jërëjëf تبت لربي زايرا بذا الندام لك وقبله أبوت بذام تبت لربي زايرا بذا الندام لك وقبله أبوت بذام وإنك لعلى خلق عظيم wa innaka la ala xuluqin azimin ya rasulallah ya xabiballah ya xayri xalqillah imam albaraya ku sopp sayyiduna muhammad